jërë ngeen jëf mbokk Wassare Lamb ñu ngi leen nuyu di leen jaar di a baax tey Kalso Kalso nag ma nee Kalso mooy boom euh, wasifa yi tey ñoo seet si mu def open press bu neex lii moom xam naa ne kàggu dañ koy dem jël rek du ma ci commentaire da damay bàyyi lépp jàll nen dem nga xool ko. pare nañ bu yàgg. doo gis état de forme. non instant mbër mi ci état instant mbër mi ci état mi ci état non gis leneen. Ah. lu leer laa lay kay ni xeex wala. lu mu lépp laaj rek. lu mu laaj rek. waaw lu mu laaj rek. kaagu jëlee ma lii kaagu. waaw waaw ci digg lii lan la gigi ceng oh kii mbaadu tooy kaang jëlal ma téye kalso yi xoolal ma loolu. parisien am na problème. kenn mësu gis lii waaw waaw. ngi nii ak Boy Faye Boy Faye nuyu naa la. oui fay bu baax a baax Ousseyn. ci loolu nag gëj naa nekk ci bagage yi rek. fi mu toll nii foo toll. waaw ñu ngi ci liggéey bi nag ñu ngi ci liggéey bi instant bi di déglu gars yi ñu am làmb yu ñuy wax mais ñu ngi toog di xaar gars yi quoi instant bi di xool fan la fan la ñuy mujj quoi. su ma juuma yow jotoon ngaa lekk avance. waaw joloon naa avance euh, jam production depuis Covid laa ko joloon mais ñu ngi dox lamb yi mais boobu ba léegi xam naa rek mooy loolu gars yi ak yaa a lamb ji moytu beeg bagage yi nu mu. mais eh, li ma ci jaaxal fi mu ñoo ngi tas mais boobu ba léegi kenn di la. waaw waaw combinaison yi ñoo ngi tas mais ba léegi nii ñu ngi wut nag gars yi ngi ci de mais am na am na buñ ma wax nag boo xam sori nañ ci torop torop torop dañuy ñaan yàlla suñu borom dogal mais xam naa ne yow doo ragal te xam naa ne fi mu toll nii même la li laajul sax yow war nga maa mën a limal si adversaire bu dul ñooñu ñooñu kan moo fi nekk sa kanam fi mu toll nii non man moom instant bi nii lamb ji moom comme instant na gars yi nañ ñëw ñu bëre Moussa Ndoye comme Garga da ngaa daanoon mu ñëw Sa Thiès daan nga ñun su ma taxawee seen kanam su ma leen tiimul duñ ma tiim na ñëw ñu bëre lamb ja amul ay maa ko sut ak maa ko mag ak maa dañoo yàgg yoon. waaw léegi waaw léegi ma moom Weuz Diambar mënu ma bëre ak moom parce que Weuz Diambar mënu ma bëre moom Weuz Diambar maa ko ëpp combat man dama bëgg lamb ju métti Weuz Diambar buñ bëree dama koy daan ñu du lamb man maa bëgg lamb ju métti laa la wax. mais yaa Weuz Diambar bu neex ma lamb bu métti. barke Alxuraan instant bii nii li ne sama ginnaaw muy waa parcelle inde kaat bi nii yëpp waa ginnaaw raay postiare ñu ne sama ginnaaw doon waa Fatick yëpp dañu ma bul jël làmb làmb nooy du ko bëre man bëre ma fekk benn ma bëre ma benn làmb nooy booy yi ne ñoo fi mën léegi nañu xool ki ñe kenn ñemeewu koo jël man boo fekk ubbi naa samay porte ku ñe kenn ñemeewu kaa jël boo ñëwee ma jël sa avance barki Mouhamad billahi wallahi ku ñëpp moytu ne kenn ñëwul la jël soo ñëwee ma jël la. jamteer yi ma jël ko barki arroo moom lay des wallaahi mu maytuwul bu bëggee mu jël ma ma xaaj sama avance dolli ko barki borom njaareem. mais dama ko gis combat dafa yàqu woon. muy général Malika ak fils Balla. waaw la moo tax a wax ne kuñ ma seet fay ma liñ ma war a fay man néew ma fi pour moytu benn mbër. barki Muhammad Rasulullah buñ ma seetsee nga waxtaan sama staff staff nii Jean ni Paul lijjantiwuma lool dama lay ñu bëre. bu ñu barke alxuraan suba suba suba boobee pare na pour bëre man ni ma toll ak li ma liggéey lépp su xaar làmb 15 jours wala un mois pour bëre mun naa bàyyi lamb ndax li ma liggéey lépp kon mun naa bàyyi yee loolu la quoi. kon daal mën nga wax gars yi nañu waaj. staff bi daal li ma mën a wax ma mën a wax mooy ngi déglu di xaar gars yi làmb bu ñëw baax na booy fay ngi toog pour ñëpp làmb yi ñëpp xam nañ ko làmb jaar bu ñu koy indee amul benn problème. kontaan naa ci yow waaw ragal. nu ngeen di waa Kal moom xam sunu garaa la. boog sama maga baax la kenn du moom. di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek bu ma ñëpp ay ay xaritam nag moom boo yëpp ay booyam lañ dañ koy ñaanal ndam rek bari sëñ Touba. kontaan naa ci yow jaayoo waay bëggee ci yow. ay me de xaada ti waalo. muy mel ne daati waalo muy mel ne daati waalo wasaare ay mel ne daati waalo wasaare wasaare TV ay mel ne daati waalo dundal nga lamb sigil nga lamb cosaano ay mel ne daati waalo joxol ñu dem mel ne daati waalo juvenal ni kalso ni kalso ni kalso ni kalso di ana kaare wol ma kaare waaw اعتقادات والو انا من اسر والمكاره اعتقادات والو انا كاره wax leen kaare gi اعتقادات والو سيدنا علي يا دويلو مام لا فالي اعتقادات والو مام لا فالي اعتقادات والو مام لا مام لا فالي saadati waalo fay bete saadati waalo lamin tamba man di bëgg naa la waaw kaaf kaaf lii fi rek la am kalso yi noonu waaw mbokk yi xool loolu ndaga la waalo waalo yi noonu kaw jëlal ma lee <laughs> mbokk yi gis ngeen maa ngi taxaw ki nga xam te ne mooy waa Cumukaay lan wax parisien. waaw parisien ñu ngi koy wax ni ko a xaar beneen yoon ñun ay sankat néew lañu. sangat néew meen. waaw man daaw da Kalso ñoo bokk famille yaayam dañuy sang néew ñun ku ci màggee da nga sang néew man tey maa ngi damaa sang woon ba soog a ñëw ndox mi sangat néew laa ko jëlee ndox mi ndox mi ngi sang. boo ko fas yéenee sangee. parisien la carte danaa ko sangee ndox mi mais nag ki may Kalso su ma wàkkoo mu neex su bëree mu neex moo fi génne taj taj taj taj taj taj taj taj taj taj taj <laughs> waas gaas gaag gaag ca digg ba mais gars yi ñu ngi leen di bëgg waa Wassare TV den wax ñu ngi leen sant ñu ngi gërëm seen liggéey rafet na ci comprends sukkur leen suñu café bëyroo sama mburu man sukkur ma sa café bëyroo sama mburu mais loolu lu baax ñu wax ko yaa ngi dégg Sénégal ku nekk di job kii wër di wax ak kii liggéey duñu benn da ngeen di liggéey ba ngeen commencé yàggul mais da ngeen warum réew man damaa dem ba Fuuta boo xamante ne si ñaari kër la benn maire bu am quatre-vingt-quinze ans cinq mois sept jours mun ma man ma nga ma nga foo jógee man ka mbokki fan mun na ana waa Wassare TV <laughs> man ko man meer foo ko déggee ndax ko ñu ngi sant ñu ngi leen di gërëm vraiment waa Wassare TV ca kaw ca kanam mais TV li ngeen wasaare was na te dina was wasaale was wasaale saw sawaale jàll ter teraar. maa ngi fi ak nguru nguru nuyu naa waaw ñu lay ziar wér. tey doon sa teewaay bi. waaw Kalso moom suñu doomu nday la moo ñu ñëw fi tey jii. Hmm. billaahi jóge géej liggéey lu métti ñëw. soo gisee état de waaw liggéey na nag. billaay wallaay liggéey na lu am toole doomu ndey Zos waaw doomu ndey Zos ngi nii la kàddu yomb firi rek bàcc. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii parcelle seet ki nga xamante ne mooy Calcio muy def open press sam wala ba dimanche muy la kat di ko bàyyi mu nuyoo waxtaan ak ñi nga xamante ne nii Calcio tourné xool caméra bi waxtaan ak ñi nga xamante ne nii ñooy fansam ak am di jàmmam Calcio nuyu naa la. asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah rabbil alamin arrahmaani اللهم تعلم خير ما دعا لي ورداني امين لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بسم الله سر بونه سر سر بونه يو بونه ادم با يو جام ادم يسو بسم الله سر بونه سر سر بونه يو بونه ادم با يو جام يسو لاتين فاتين جابان مستورا latin fatin jaban mustora kumba bete serebet waaw maa ngi leen di ñaan booy yéen ñu ne fi yëpp wër na su ngi leen ñoo far quoi waaw maa ngi nuyu waa 1 ba waaw gannaaw yàlla yonent nag euh, maa ngi maa ngi maa ngi jul ci yonent bi di gërëm sama fukki waajur ak ñaar bu foofu nag yow man maa sant bu baax yow pël gannaaw yàlla yonent bi lépp yoonal nee naa la fu ma mën a nekk naa la ko parce que bu du woon yow man xam nga réeroon naa maa ngi woon Afghanistan dafa nga nga génnee ma jëlee ma Afghanistan yóbbu ma Sirat jugee ma fa yóbbu ma fi ñuy wax aras kon boog lép yow waaw maa ngi sant nag yéen waa Wassare di sant yéen waa Baol TV ñi fi nekk ñëpp presque ñëpp on ba 26 bàyyi ma kenn maa ngi sant sama rakk sama xarit di Diop lépp mooma lépp Kalidou Diop la billaay walaay wa taala lépp moom la lépp lépp bàyyiwuma nag kenn soq mi fi ñëw sànq maa ngi koy gërëm ñoom Garga 2 ñoom Boy fay ñi ñëw ñi ñëw ñëpp maa ngi ñaan nag mburu parcelle bu am làmb yàlla nga daan Modou Lo jël nañ nuyoo bi teg ko yi loxoom di nuyuwaat Mbacke Sylla di nuyuwaat Amadou Fall bu golf gannaaw yàlla mu nga xamee papa papa daan fa tax ma xam ko mais mais mais mais Kalso dama nga ne pël dalaa jógee askan di san andi la fii mais fam la dugal yombul de waaw man foofu ma jëmee yow ku jugee Afghanistan yow lu gën a métti Afghanistan gis nga ko yow la man mënu maa nekk ragal ku juddu fekk say waajur samay famille yu yaay di nekk ay sàngkatu néew man lu may ragal. mais mais Kalso. may leen ñu may leen ñu tuuti may ñu Kalso waaw. est-ce que xam nga ni parisien est-ce xam nga yow xam nga xam nga xam nga làmb ji làmb ma ci métti rek mooy li ma li ma li ma naroon cet daf ma ciy jiitu muy ma am ci problème mu loxo gis nga loxo bi waaw dama waaw mais maa ngi sant waaw mais maa yàlla bu baax a baax yaa ngi dégg maa ngi sant yàlla bu baax mais nag waa écrit dóor dóoraat bàyyi ma kenn Calcio gërëm bi di nga ci ñëw non di nga ci ñëw may ma waaw di nga ci di nga ci duñ ci ñëw ci combat bi lay ñëw mais keroog seen signature bi yéen ñaar dama gis coow li bëri lan woon waaw signature bi booy bi damaa ñëw mu tuur ma gàllaaj bi ma tuuree gàllaaj yow lépp fi la la fekk ci laa ko xëcc poñe ko booy bi ma poñe booy bi mel na oto bu dagg karnaan naan jéen rëg rëg yaa ngi dee li ma sugee yow yaa tax yaa yaa def erreur parce que yaa ne diggante bi bi ma ko poñee xam booy bi ma ko bàyyiloon day faatu te kon dama naroon def kirim ci làmb ji léegi booy bi ma ko kii mu mu mu ma ba ma yoxosu ci laa arrêté na def kabaltasi andil ko xeexu Afghanistan bi lan mooy xeexu Afghanistan mais doom yaay doom yaay damay santaat bu baax pël. di nga ñëw ñëwal ci làmb ji kay non dafa ndànk sant bi mooy mujj ñëwal ci làmb ji ba noppi. làmb ji billaay sa lamb làmb métti na bi nii. doom yaay dégg nga na da ngay xaar doo puus doo paas. parisien combat bi yow xam nga lim ci yaakaar parisien xam nga ni entraîné wul keroog ba mu ñëwee jàkkaarloo bi amoon TFM ñeenti yëre la tegale di lox nee na na nee na sa yi ngay def jël mbaxane yi di àbb di andi yooyu mën naa ñàkk mbaxane may àbb la loolu de la wax mbaxane mi maa ngi ko jële fi ñuy wax bagaso bagaso laa ko jëlee ci wetu Niger mais ko dooso yi ñoo koy sol nee na nag nee na dina la doo doo yu métti ba waa Parcelles ku la gis da lay moom gàllaaj lay yaakaar ci làmb ji ba waxee muy profité na ay ay sëriñu nangam sëriña man combat bi nii non man combat bi man ñi ma ci jàppale jërul may mais nag jàppale bi yëpp yëpp lépp Kalidou la fépp fu ma dem ñu defal ma fa xéwal Kalidou moom moo ko def. mais bu la gana gannaawu la nit ñi jàppale ba ba noppi yow lan nga naa waaj bés ba. bis ba man damay defal xam nga damaa waxoon taayale man la làmb dama daan def bool bu ne ginaar bi yoon soos laay indi ay tufe ay macarona bu ma bu ma bu ma bu ma xëyee laaxu bisaab la ñuy ndekkee añ bi ñu añee soos. kaal Kalidou maa ngi lay wax nag billet yi nañ ko jënd parce que boo yëpp dañuy dem. waaw Kalidou billet yi nañ ko jënd ndax ñëpp. mais maa ngi sant nag di gërëm. papa nag yóbbante na ma yóbbante na ma. maa ngi gërëm Gora Mbaxal maa ngi gërëm ah, ah, Pape Sarr. wuy ma fii wuy ma fii bëgg naa nag mu wax Lat Diop mu jënd billet. waaw waaw. yow moom fan la la ko waxee ah. parisien combat bi gàllaaj la ci yaakaar yow wóor na la yow parisien keroog def signature bu njëkk wax naa wax naa Assane Ndiaye ne ko combat bi nañ tëgg mu jeex xam nga yow yaa ma buñ bëree fii mais wóor na bu doon buñ taxawoon maag moom kese kenn mënu maa yëngal yow wax naa la koo xam si da ngay jël di exploit trois cent kilos comme complété yow wóor na la kee deux cent kilos bu ko exploité dana paralysé ma de man mënu maa nekk ragal chaque jour ma wax la ko waaw waaw bi fan nga ci toll mobilisation bi foofu mobilisation bi bàyyi ma kenn déglu ma la wax bëgg naa ma wax Papa Tanfan mu wax Amadou Fall jënd billet bëgg naa ñoom Gora Mbaxal tamit mu wax Lat Diop jënd billet Kalidou Diop tamit dana jënd billet ak ñeneen ñu fi nekk waa aéroport ak Moussa Naar kii Moussa Naar sonn na ci combat bi parce que dafa may ñaanal foo xam ne fu ma fekkewul waaw Moussa Naar borom juróomi jabar yi juróom la am waaw As Ndiaye séeri waaw ma kenn bàyyiwuma kenn mais danga ma may lenn ma jël kaye bi kaay moom xaju fi moom. ah kaay bi xaju fi. bàyyi ba bàyyi woon ñëpp bàyyi Ousmane Ndongo Lo mi bàyyi yëppam ñëw. parcelle nag bàyyiwuma fi kenn kenn kenn parcelle ñëpp sama rak yi bàyyiwuma kenn parcelle 1 ba maa ngi woo ñoom moom ñoom ñoom ñoom Moussa Ndiaye ñoom Daouda ñoom Wës ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom waa Joolaay ñi sant Diatta waa kër ñoom Kalidou waa Ndiobène kër ñoom ah, ah, ñi ne fi ci terrain gëjëm Aline Diop waa Taïba Ndiaye bàyyiwuma kenn barale bàyyiwuma kenn ñi nekk fii ci terrain Joola wër ko kër yëpp woo naa leen ñun ñu def ñaan bàyyiwuma kenn di ñaanalaat Kalidou Diop yàlla na ko fi yàlla defal gudd fan ak wér ak waa gërëmam gis naa ni mu sonn ci man Mbacke si la gërëm naa ko bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn sama rakk yi nekk Europe Amène Ndiaye Amène Ndiaye ma nga Italie moom Dame si la Alsane Ndiaye Mouda Ndiaye Sega Babacar sama rakk yi nekk bitim réew ñëpp parce que sama rek yëpp a ngi Italie bàyyi ma eh, na ci man Daaru Ndaw sonn man ñoom Laay Sabali ñoom Moussa Wërs bàyyi kenn booy jaata yi bàyyi ma kenn képp kuy sang néew ku ne fi rek maa ngi lay sangkatu yi xam ngeen seen bopp waaw ñëpp bàyyi ma kenn mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax baax tey li leen andiloon ci parcelle seet si ki nga xamante ni mooy Kalsoum mu defoon open press am mbokk yéen a ko am na ambiance am na rythme wane na dooleem wane na pare na daal di wax ne parisien na pare ndax Kalsoum lay dajal sang ko ti néew yeeg ñëpp woo na leen waaye di leen jox di daje ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf